ka doon bàyyi doon maam lu dëgg mooy jubalaat kooku di doomi Sëriñ Basiiru tey sëtu daam ka doon bàyyi doon maam lu dëng mooy jubalaat moo taaru doon na taaru biir ca maam delluwaat jël mbubbu taaru bi téem ca baay ba dal di solaat xanaa ki may wax bu doon aw cax kon càqi ngeen bu doonu lépp fii ko gaayi nan xalamaat ka seyxi bamba junjoon ca way walil muntaqa wajaatu ñëw na ndakaar ngir dëggal delluwaat ka seyxi bamba junjoon ca way walil muntaqa wajaatu ñëw na ndakaaru ngir dëggal delluwaal ka Seyxi Bamba ji njool ca way walil muntaqa wajaatu ñëw na ndakaaru ngir dëggal delluwaat ka Seyxi Bamba ji njool ca way walil wajaatu ñëw na ndakaaru ngir dagal delluwaat ka say xibaam junjoon ca way walil muntaqa wajaatu ñëw na ndakaaru ngir dagal delluwaat jëlal ma way wata daal di koy xadat te xalam mu jox la mu ñëw ndakaaru ngir yeesalaat jëlal ma way wata di koy adat te xalam mu joola an mu ndakaaru ngir yee jumaa jamoo di masaalikul jinaani ku dem jàpp julli fa am nga am xasanaat jumaa jamoo di masaalikul jinaani ku te jàpp fa julli fa am nga yool te am asanaat gannaaw masaali gitam la daldi woote tabax ab jàngu ngir université sëriñ bi jugaat lil Mustafa li banaal xudduus madrasatan loolaay la Seex Muntaqa jëmmal ni ngeen takkuwaat lil Mustafa li banal xuddus madrasatan loolaay ngeen takkuwaat li banal xuddus madrasatan loolaay la Seex Muntaxa jëmmal ni ngeen takkuwaat mooy taalu xam-xam ba Bamba taal te mus fay boobee ba tey ku fi jaar saw nga jël jëfalat mooy taalu xam-xam ba Bamba taal te kat mës la ba tey ku fi jaar saw say nga jël jëfalat sayam wa Seex Muntaxa daaray amul ni mel xambal na taalu bi yëpp seeni taal taaliwaat jël kàddu yàlla gi wax ni nan ko yëkkatikat te bañ mu laalati suuf ne ñëpp yëkkatiwaat baytu zakaata ngi nii ko aajo azaka bum sëriñ bi amal na kër gu ñeel azakaat yaakaar yi way ñàkk yaa ngi dimbalaa ko na ngi ku xiif ba yegsi ci moom mu daldi jël ya falaat moom fa nu sedde mag ña yanu am falan ko sedde cëram mu ñëw di sedde lawaat seexul xaddiima di maam ja sëriñ basiiru di baay ba moo waral ni mu mel si di dafay rogalaat pasteef bu doon géej la moo ko fey bu doon dexitam seex muntaxaay ki ko xuus pa jàll dal di weyaat ak dogutam bu ni woon am ndox la mooy ko naan bu doon lu nuy wuti tam du mooy ki koy waat man xaadimul muslimiina maa la way la defal ko koppi ku di jullit di déglu sabaat Cheikh Muntaxa na yàlla buur bi guddal la wér banaali yegg nga naal yeneeni naal naali waat na yàlla buur bi guddal yu yokku la wér banaali yegg nga naal yeneeni naal naali waat ci barke Seexil Xadiimi jaamu yàlla baraw ñi jiitu woon ak ñi ñëw gannaaw bi ak ñi ñëwaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang bëggan luy nit ku ñuul ak ku weex ka yàlla may darajaat te yàlla julli te sel malaat te sang bëggan luy nit ku ñuul ak ku weex ka yàlla may darajaat subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin cheikh mouhamadul muntaqa yann fi yàgg te wér mboolem taalibe yi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 sët bi borom bi dafal mu jiite taawa ki caat kookaa di doomi Sëriñ Basiiru tey sëtu daam ka doon bàyyi doon maam lu dëgg mooy jubalaat kookaa di doomi Sëriñ Basiiru tey sëtu daam ka doon bàyyi doon maam lu dëng mooy jubalaat moo taaru donnu na taaru biir ca maam delluwaat jël mbubbu taaru bi téem ca baay ba dal di solaat xanaa ki may wax bu doon aw cax la kon càqi ngeen bu doonu lépp fii di ngeen ko gaayi nan xalamaat ka seyxi bamba junjoon ca way walil muntaqa wajaatu ñëw na ndakaaru ngir dëggal delluwaat ka seexi bàmba junjoon ca way walil muntaqa wajatu ñëw na Ndakaaru ngir dëggal delluwaat ka jëlal ma way wata daal di koy xadat te xalam mu jox la at ma mu ñëw ndakaaru yee salaat jëlal ma way wata daal di koy xadat te xalam mu at ma mu ñëw ndakaaru yee salaat jumaa jamoo di masaalikul jinaani ku te jàpp julli am nga te am xasanaat jumaa ja moo di masaalikul jinaani ku dem te jàpp fa julli fa am nga te am asanaat gannaaw masaalik itam la daldi woote tabax ab jàngu ngir université bi jugaat lil Mustafa li banaal xudduus madrasatan loolaaye la seex muntaqa jëmmal ni ngeen takkuwaat lil mustafa li banal xuddus madrasatan loolaaye la seex muntaqa jëmmal ni ngeen takkuwaat lil mustafa li banal xuddus madrasatan loolaay la Seex Muntaxa jëmmal ni ngeen takkuwaat mooy taalu xam-xam ba Bamba taal te mus la fay boobee ba tey ku fi jaar saw say nga jël jëfalat taalu xam-xam ba Bamba ba tey fi jaar saw nga jël jëfalat sayam wa Seex Muntaxa daaray amul ni mel xambal na taalu bi yëpp seeni taal taaliwaat jël kàddu yàlla gi wax ni nan ko yëkkati kat te bañ mu laalati suuf ne ñëpp yëkkati baytu zakaata ngi nii ko aajo azaka bum tiit sëriñ bi amal na kër gu ñeel azakaat yaakaar way ñàkk yaa ngi dimbala ko ngi ku xiif ba yegsi ci moom mu daldi jël yafalaat walaayi moom fa nu sédde mag ña cëri yanu am falan ko sédde cëram mu ñëw di sédde lawaat seexul xadiima di maam ja sëriñ basiiru di baay ba moo waral ni mu mel si di dafay rogalaat pasteef bu doon géej la moo ko fey bu doon dexitam Seex Muntaxaay ki ko xuus ba jàll dal ak dogu tam bu ni woon am ndox la mooy ki ko naan bu doon lu nuy tam du mooy ki koy wuti waat man xaadimul muslimiina maa la way la way ko koppi ku di jullit di déglu sabaat cheikh muntaxa na yàlla buur bi guddal saw fan yi banaal yi yegg nga naal yeneeni naal naali waat na yàlla buur bi guddal sa fan yi banaal yi yegg nga naal yeneeni naal naali waat ci barke Seexil Xadiimi jaamu yàlla baraw ñi jiitu woon ñi ñëw gannaaw bi ñi ñëwaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang ba gën luy nit ku ñuul ak ku weex ka yàlla may darajaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang ba gën luy nit ku ñuul ak ku weex ka yàlla may darajaat subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin cheikh mouhamadul muntaqa yann fi yàgg te wér mboolem